la preuve ñu ngi joxe datu manifestation le 19 n'est-ce pas le 18 place de de la nation dañuy yëngalaat suñu gisul gain de cause ñu gën a évoluer soo bàyyiwul ñu bàyyi soo tàyyiwul ñu bàyyi waaye li ma bëgg tënkee sama kàddu te jeexalee ko mooy Macky Sall jàpp yi ñuy jàpp di ko jàpp suñuy naataangoo wallaahi yaa ngi yàqal sa bopp ndax jàpp nga ni dinga nga démotiver nit ñi wala gor seeni tànk waaye tey la ñu gën a engagé tey lañu ñu gën a déterminé te fileeg wàccoo 2024 bii du duñu mës a bàyyi di leen jaajëfal yéen ñëpp. ñu ah, tamit mu ci quelques kàddu. asalaamaaleykum uh, mbokk yeeg xarit yi maa ngi am mbégte mu rëy ñëw bokk ci conférence de presse bi nga xam ne COLIDEP moo ko woote COLIDEP nag mooy ay kuréelu société civile yu boole seen bopp jóge boor bu nekk waaye bokk réew mi bokk jafe-jafe réew mi lépp luy xew ci réew mi ñor leen ba ñu lënkale seen doole pour taxaw di xeex ci dëgg pour que ku ñuy jaay doole. ñu dakkal jaay doole bi ñu lay jaay doole képp kuñ tëj ci kaso yi ci jaay doole ñu taxaw xeex pour nga génn képp koo xam ñu ngi la bëgg a jaay doole pour xañ la say àq ak say yeleef it ñu taxaw ci loolu kon Kolideb loolu moo ko tax a jóg muy ay ndaw yoo xam ñoo ci ëpp waaye ànd ci ak ay mag parce que ñun ñii ñoo leen di magal ku ci mel ni man mii ak Cheikh Bara Ndiaye ak euh, mon ami Clédor Sène fes nañ ci ñi nga xam ni xëy na ñoo leen gën a ëpp ay at mais ñoo bokk xeex ndaxte xale bu ay loxoom setee mën naa bokk ki mag loolu moo tax ñun ñuy am mbégte ñëw ànd ak xale yi pour que ñu xeex nu war a xeex pour réew mi teguwaat ci dëgg Cheikh Bara Ndiaye dafa am ngànt su woon loolu dina ñëw ndax waxtaan nañ ci biig Clédor la même chose waaye man su ma fi teewee teewal naa leen ñuy wax ne ñii nga xam ne ñoom ñoo gën a fës ci xeex bi di ay gone yu ndaw war naa tax xel yi dal ndaxte Sénégal am na relève gulet ñoom société civile boo xam ne duñ ay société civile bling bling maanaam di wut ay ay ay ay subvention ay alal ju jóge bitim réew taxu leen a jóg ñoom li leen tax a jóg mooy seen réew taxawal seen réew nekkal seen réew xeex pour seen réew ndax réew mi soppee ko ndaxte jaay doole bi am ci réew mi mënatul a continuer président mag Sall lii mu nekkee te bés bu nekk muy gën a ñoqali mënta continuer ci nii wala ci naa day bàyyi jaay dooleem bi wala ñu jàmmaarloo ak moom te jàmmarloo bi door na ci COLIDEP ñu ngi waajal di wàcc ci terrain bi di def ay flyers ñu ngi wax ak sénégalais yi ñu ngi koy xeeb waaye cëy bu ñu xamoon bu ñu xamoon ne lii COLIDEP di togg nga xam ne sénégalais yi fu nu dem ñu ànd ak ñoom ne leen lii ngeen di def ñoo ngi seen ginnaaw kon président Macky sàll képp ku koy digal na ne ko xeeb na xal boo xam ne moo nara lakk dàggaam ñun. lii nii togg mooy réew mi teguwaat ci dëgg président Macky Sall jaay dool rek la fi nekk président Macky Sall mënta souffrir opposition mënta souffrir contradiction maanaam nit ku àndul ci li muy def koo mën a doon booy def lu toll ni tarfatal ay ni bu dee moom yëg na ni li ngay def ni arrangé wu ko pare na pour rey la pare na pour faagagal la président Macky noon lay xalaate loolu nag mos fi am amul benn président de la république bu mos a def loolu Sénégal koo xam ne yow képp koo xam ne yow àndul ci li ngay def taxawee nee wax ne moom dàkkul ci ni ngay doxale ci réew mi nga ne kii naa ko faagaagal naa ko rey mu dee kooku benn président mosu ko def guléet président Macky sàll moo ko fii def ñu nekk ci kaso bi wuute nañoo ñi nga xam ne ay ministre ñu nekk ci moom ñu leen di jàpp ci ay faux billets parce que nga am yow gouvernement boo xam ni say ministre seen i doom a ngay jël ay oto yoo xam ne amuñu permis dem di fiir doomu jàmbur yi dara fekku leen ci nga am ci sab gouvernement ay ministres yoo xam ni dañ leen a jiiñ ni seen doom ña ngi koy jàpp ci faux yoo xam ne mat na milliard dara du leen ci fekk wala bu leen ci fekkee ab diir bu gàtt la ñuy def ci kaso bi ñu defal leen liberté provisoire ay xale yu ndaw taxaw ci euh, di xeex pour seen réew nekk ci seen liggéey def ñu dara nga mën ci lim ñu mel ni ay ñoom Papito Kara ay ñoom Ousmane Diagne nga xam ne man nii sama élève la woon lycée Limamoulaye ma xam ko muy xale bu yaru amul benn problème buy wax sax presque du siggi xool la loolu laa xam ci moom mu nekk gor set wecc deful la dara lu dul rek dafa taxaw ne moom dafa ànd ak leader boo xam ne gis na ni projet bi mu yore moo gën pour Sénégal mu ne kooku lay ànd accompagner ko pour mu jël réew mi nga ne ko yow loolu rek laa la mere dinaa la tëj ci kaso bi xañ la sa liberté xañ la sa njaboot xañ la say mbokk xañ la say sa sa wér-gu-yaram parce que kaso ku fa génn sa wér-gu-yaram am problème su tante parce que kaso du du këru gor waruñu la faa téye parce que defoo dara rayoo nit sàccoo njub la moom mais da nga taxaw di xeexal sa réew taxaw ci benn projet boo ma war a soppi réew mi ñun la doo ko fi defee te yow président Macky loolu nga defoon ba jiite réew mi nga ne keneen du ko fi defaat man damay jiite ba doyal seet ku ma neex ma jox ko ko président Macky Sall réew mi donnoo ko ci say maam dolloo ko ci say waajur ba war ñoo yegg fu na yàlla yeggul dañuy génn ci nii wala ci naa wala la mobilisation sera permanente jusqu'en 2024 duñu dellu ginnaaw tànk bàyyiwoo doomu jàmbur yi te lu ñuy gën a dem looy gën a ñoqali di leen gën a téye ci kasa bi ñun tamit ñuy ñoqali wuti palais parce que encore une fois place de l'indépendance googu ñuy wax ne kenn waru faa manifester fenn lañ ko tegul réew mi y a pas zone de non droit benn espace boo xam dañ naan kenn amul droit dem fii te ñoom bu leen neexee ñu dem fa bés bu nekk waa APR dem manifester ba ca grille te kenn leen tudd bu ñu amee seen manifestation ba dem sargal président de la république waaw boo nangoo ñu lay sargal war ngaa nangu ñu lay ŋàññ parce que réew mi yoroo ko ci yoon président de la république kon nag li ngay nangul waa APR ak say jegeñaale ak waa Benno Bokk Yaakaar bër bu leen neexee ñu dem ci grille palais ba jàpp ca di la sargal te ñoom ñoo ñu koy def xam nañ ci tappalañ nekk parce que réew mi yoroo ko ci dëgg nit ñu taxaw ne ànd ñoo yow ni nga yor réew mi nga ne yow ku bëgg a manifester place de l'indépendance du ko fi defee wala dinaa jàpp dugal ci kaso bi kooku tegoo ko fenn kon moo tax ñun mobilisation bi duñ ci dellu ginnaaw mënoo fee xoqatal kenn mënoo fee tiital kenn parce que réew mi moomoo ko réew mi dañ la koo dénkoon juróomi at sax nga diggee wun nga mujj def juróom-ñaar te yaa ne woon da nga koy wàññi nga ñëwaat 2019 ci ay tappale nga gañewaat élection yi parce que élection 2019 yi gañe woo ko bu élection yi jaaroon yoon dañuy dem deuxième tour. kon yow nga fexe ban amaat ñaareelu mandat constitution bi nga voteel sa bopp ne la réew mii ñu nekk muy Sénégal kenn mënu fee am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo te yow sa ñaari ay mat na da ngay fégal ci nii wala ci naa boo ko mënul ñu génn la wàññi dëgg. mooy président Macky Sall moomooñu réew mi moomoo ko kon sénégalais yi bu leen taxaw di seetaan président de la république di ñu àgg foo xam ne ñun ñoo ko jox doole jëm yore mu dem yokk li mu policier am lokk yi mu gendarme am jënd ay oto ñu bëgg a taxal sa Pape Alé Niang naa ci ñëwaat ay naan daa def benn poste bu am day wanal ay day wane ay oto yu jënd yoo xam ne affaire défense la. yow réew moo xam ne nit ñi bu ñu añee du ñu reer dañuy gobar jaas yi nga bëgg jël lu mat ay 400 milliards def ko ci ay jumtuwaay yoo leen war a duma waaye sénégalais bu buñ buñu buñu bu ñu tiitul xam ne ñu ngi xamuñu ci leen nekk yow loolu ñu taxaw di ko dénoncé nga ne kenn du ko fi dénoncé réew mi am nit ñi bu ñu añee duñu reer ñëpp a sonn kenn ku ci nekk presque fa ngay liggéeyee lan lay jox munoo caa sax dund fukki euh, fukki fan léegi nga xam ñëpp ay taqale liggéey liggéeykat yi dañuy taqale waxoon tuma laa ñu amul xëy yow président de la république nga mën a jël lu mat lu jege cent milliards def ko ci ay jumtuwaay yoo war a dumaa sénégalais ci sa budget 2022 bi lii la président Macky Sall def toroxal sénégalais yi moo ko tax a jóg alors que président de la république yiir sénégalais yi ak aar leen ak taxaw seen i jafe-jafe ñoom ci loolu nga war a ne moo tax dañuy exige ñu libérer ñun téye ci kaso yi lan leen téye ci kaso yi dara du ci dëgg man mii ñi ma ci xam ñëpp dem naa fa seeti leen prison mais koo ci toogal sa xol jeex Ousmane Diagne ma yeggee daan ma monsieur parce que man profom laa mu ne ma kenn waxuma lu ma def parce que ma ne ko defoo dara ku deful dara dañ lay jéem a téye jaay doole parce que ñoom loolu la ñuy def dañ lay jàpp ba noppi di jéem a ay ay ay chef d'inculpation parce que amuñu loolu la jàppe parce que defoo dara ku ci mel ni pap Ousmane Seck nga xam ñoo fa wandoo ci ngumba ngeewul ma xam baayam Ibra sekk yar ay doomam bala ñoo génn seen kër dañuy wàcc alxuraan parce que dafa wut ab sëriñ buy jàngal ay doomam wutal ko fa appartement wutal ko fa wutal ko soxna mu nekk di jàngal ay doomam bala ngaa génn këram da ngay wàcc alxuraan mu toj jumaay ngumba ngeewul def fa jumaa ju mag jël taawam bu jigéen may ko imam bi mu nekk soxnaam kooku lañ ñu bëgg a présenté ni kooku ab terroriste la kooku ah force spéciale la bokk mais tappale ci tappale lañ nekk nekkuñ ci leneen kon nag lii kenn ko fi nangoo tey kenn ko fi nangoo ëllëg nañu taxaw temm ñun sénégalais yëpp parce que président Macky Sall dañoo bëgg a napp te nappam yi yëpp li ko waral mooy lim mënta nekk candidat 2024 te bëgg a pour nekk candidat lim bëggoon nag ci fan yii nu génn mooy jour bi ñuy entendre Ousmane Sonko lam ca doon wut mooy daaw bëggoon na entrainement pour natt boppam daa bëggoon na natt boppam xool ndax li mu yokk ci ay limu policier ak limu gendarme parce que gendarme yi léegi lim bi ñu am tolloon ak les effectifs de l'armée de terre te deux mille vingt 2021 rek deux vingt 2021 bii nu génn l'armée de terre ëppee woon na gendarme yi au moins cinq fois actuellement effectifs yi ñoo tolloo Macky sàll loolu lépp da ko def pour duma ñu ñun sénégalais yi lii nag il faut ñun ñëpp ñu xam ne ku toog di seetaan yaakaar ne bokkoo ci yàgg ndax sa bopp ñun ñëpp a ci bokk kenn du fi nangoo mun a jaay doole léegi audi jour audition Ousmane Sonko bi la mu ca doon wut di jañ sa nit ñi pour ñu taxaw xeex ak moom daa bëggoon a natt daa bëggoon na entrainement daa bëggoon a xool ndax li mu yore doy na pour ko defee bu buñ ko dumaa mu dolliwaat loolu la bëggoon bu fekkente ne gagné na mu ne alhamdulilah baax na kon man maa waajal déclaration troisième candidature fi mu toll nii xamul fu muy taxaw parce que li mu yore wóoru ko ndax doy na ko fi maye mu entraîné dañuy bàyyi ba ca cooki fin ba rek ñu laale parce que laale mënut a ñàkk. parce que moom bu fekkente ne delluwul ginnaaw laale mënut a ñàkk kon léegi duñ fi duñ ko fi bàyyi ba su baax ba ñëw rek waaw parce que fi mu toll nii li mu bëgg mooy essayer li yore ndax baax na dara leeru ko ci ne baax na parce que gis nañ fi benn aal. benn àll demoon na ba armem force de défense et de sécurité yi presque tolloo ak population bi ba muy dem daa dem ca dem ñu njëkk ya ba population bi taxawoo gis nga un peuple uni un peuple souverain un peuple bu gëm boppam amul benn benn force de défense et de sécurité bu leen mën parce que ñooñ ci ñun lañ bokk policiers yi ak gendarme ñu ñun ñoom ñooy ànd ñooy jàngandoo def fi concours ñee def police ñee def gendarmerie ñee def fi santé ñee defi leneen ak leneen ñu bokk ci kër yi di añandoo di reerandoo di takki jabar di dem ay ngénte ñoo bokk lépp réew mi moo tax ñoom nañ xam ne ci réew mi lañ bokk fii y a pas deux camps loolu la président Macky Sall war a xam te bu fi ñoqalee ba def fi loo xam ne waru ko def policier ak gendarme duñ taxaw di rey sénégalais yi parce que seen i mbokk la ñuy rey bu boobaa seen jabar la ñuy rey bu boobaa barki Dembo Ndiaye maa ngi koy wax ci impacté terre dañoo dem jàpp ñoo xam ne dañoo bëgg toj seen kër jaay leen doole ni leen par force damay toj sa kër sa kër gi jàpp naa ni daal 9 millions laa la ci war a jox aloo que def nga sa sa terrasse boo xam ne nga def nga ci lu jege 20 millions suuf sa ñu ni noo suuf si état bee ko moom ñu taxaw di xeex ne suñuy kër da bañuñ ñu toj ko mais ku koy toj da ñuy dàmp jox ñu liñ ci defoon ak suuf si ñu ko jënde woon mu ne non moom suuf si du ko joxe parce que suuf si état bee ko moom dana wut ci àllub yebaa ba ci dem ci route autour à bi foofa la ñu wax ne leen di yóbbu ñu taxaw di xeex ñuy jàpp ba jàppaale jabaru gendarme ma ne ko ñoom de egg nañ def nga garde à vue de ñam nga garde à vue te yow jabaru gendarme te moom gendarme bi brigade ba mu nekk moom mu ñoo doon jàppaate ba jàppaale waale jabaram loolu da leen di wan ni <laughs> l'obélisque bi ñu tuddee léegi place de la nation di dox di def suñuy déclaration di def suñuy slogan di wax la nu métti ci réew mi exiger ñu libérer ñi nga xam ñoo ne ci kaso yi ñu ne ñoom ñoon ci presque place place de l'Obélisque fees na loolu lañ bëgg sénégalais yi génn leen massivement toog ci kër duma ak di duma ak di jël police ak gendarmerie di ko jañse ci biir sénégalais di leen jaay doole ak di leen tëj ci kaso yi loolu dafa war a jeex te loolu ñun sénégalais yi rek moo ko mën a jeexal donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp la salaam